gis nañu Pape Djibril Fall mm-hmm. jotoot na def benn sorti sortie mm-hmm. génnoon fustiger les artistes sans exception wax ne kat que élèves yi bu ñu waree gën a bugg góorlu yegg benn niveau bu extraordinaire il faut que ñu bañ a topp série yeeg wala théâtre yi nga xam ne amul leen fenn fu mu leen yóbbu démystifier un peu le terme d'artiste loolu après sax démb sax def na benn sortie wax ne ko waxeew ko noonu Euh, chose à son contexte léegi ci loolu nangu ko jàngatee en tant que pionnier dans dans man dans le seetaanuma ko woon dañ ma ci am dégg-déem hmm. dégg-déem c'est-à-dire on me l'a raconté alors tout de suite fibre artistique bi daal di jóg parce que nag quand même ko attaqué métier bi dafa mel ni man personnellement da nga ma attaqué j'avais réagi par rapport à ça mais li njëkk a dikk sama xel ak sama xol sama xalaat mooy il n'a qu'à s'excuser publiquement d'abord parce que métier la boo xam ni dañ ko war a jox gëdd jox ko respect surtout ak nit ñi koy def il se sacrifie pour une cause pour une cause boo xam ni c'est une cause euh, même national aussi noble aussi noblesse moom dañuy wax mbër yi mais nañ moytu ñoom it utilisation artiste boobu day théâtre <laughs> kii lay théâtre y a ces choses yoo xam ni dafa am définition boo xam ni waruñu ko jël rek fagoti ko euh, fago fagotise ko maanaam oyofal ko ba nga xam ne dañ koy ñàkkal fay la mbër boo wax mu daal ne kii day théâtre hmm. mu ñu wax ñoom seen kaddu bopp kaddu mbër par exemple ñu daal ne waa kii day fo rek loolu ngi fii parce que engagement bi ñu leen laaj hmm. waxuñu leen ñuy saboter hmm. signature signature contrat yi ñuy def kii toog fii di wax naan ko bu la jàppee dinaa def lii dinaa la def lii dinaa la def lii loolu la la ñu war a jël ñu arrangé ko ba mu gën a rafet kàddu yi rafet parce que ku demagul làmb ja doo xamagum nooy daanee ak ki ngay daan kan la waaw kon nag kenn du dem làmb di làmb mu tudd làmbaatu waaw parce que nag dañ ko dañu extraire definition bi ci loolu cest dire làmb la làmbal ba daj nga soog a bëri daan mm. waaw yow dama goo làmb ja te dara mm. nga bëgg a waat wàcc ni tey tey tey nga yóbbu teer ki nga jàkkaarloo <laughs> ci kaw lan mm. est-ce que yaay yàlla est-ce que yaay yonent ba ci kaw wóolu sa bopp léeg nag nen moytu doole day nax borom de parce que eh, koy soxla moment yoo xam ni nga xëccu xëccu pour mu ñëw parce que nit moo mel noonu yow tu es en pleine possession de tes moyens donc mais dina am ay jours yoo xam ne sans lay doon mais yaakaar ni rek ni c'est avec et ça viendra c'est avec d'autant plus que yëkkati poids yooyu ñuy def di altéro loolu franchement boo ci dëkkee nga bàyyi ko pour benn fan ñaari fan da lay indil jàngoro sibiru waaw ah, parce que day fekk yaram wi tas na mokk foog nga tëdd ba récupérer loolu waaw te am na ñu ci jóge sax yoo xam ni nii feebar bi day continuer c'est vrai donc ay mbër lañ yoo xam ne nii constamment war nañ seet seen santé seet lañuy lekk seet seen entraînement naka lañ koy defee waaye di yëkkati poids yëkkati poids rek ba am ba boosin yaakaar ni voilà jàkk nga wala taxaw nga wala nangam nangam gisuloo dañ ciy dem a dem a dem ba bu mbër bi dogee. waaw mu am muscle biir lay am. biir lay am c'est vrai. waaw te normalement muscle la la la bëggoon. yokk ko mais justement day dog boo dogee da ngay lax waaw boo laxee nag mbaq parce que yëkkati poids moo taxoon yaram day fayu yaram vraiment day fayu te ñoom xam nañ loolu ñi leen yore doon seen entraîneur ngir yàlla ak yonente ba nañ leen wax poids yi ñuy yëkkati ah bëre ci làmb mm. nekkul foofu parce que foog nga nekk ko xam ne ni da ngay am muus am fit am tamit as doole soo xam ne yëpp lay combiné nga xam ni d'abord di nga oyof mën def ay juste geste bañ ne kii lest na mais travailler le corps jusqu'à être lourd loolu day daaneel mbër te dara xewagul vraiment boo doon dugg sax ci combat Balla Gaye bi nga xam ne le premier janvier ñoo ngi ko war a bëre Balla Gaye booy Niang euh, kan nga supporté non ku ci man sam xam nga lan la uh-huh. ku ci am fulla am fayda uh-huh. def sport bi normalement uh-huh. am fit uh-huh. vraiment làmb ji sa lamb lay doon. waaw. boo doon conseil Balla Gaye wala conseil mooy ñaar lan nga jox yan kàddu nga leen yëkkati. Balla Gaye wuute na ak mbër yëpp. waaw du far de mm. mais wuute na ak mbër yëpp mm. lu tax uh-huh. dafa liggéey liggéey boo xam ne yaram wi nu ko neex mën na ko mel ah. nu ko neex lay defee déplacement nu ko neex lay lay lay fooyee yaram bi daal ci bër bëri te loolu boo ko amee day yokk fit gi kuñ la taxawal sa kanam ñeme nga ko suba ba ngoon ñeme nga ko ñeme nga def quinze combats sur l' instant bu dee bëri foo rek ñeme nga def quinze combats sur l' instant mais yeneen bëri yi muus googu moom mu muus ak ni mu lestee souvent moom leen di daane parce que na nga ko xool. bu la tàllalee loxo bi waaf siggi waafaat siggi nga jànnaxe dootoo xam kii <laughs> fan lay dem mel ni rek nga doon dàq kañe mu jaar lu gauche wala droite nga koy jë voilà réeral la ñi mu daan ñëpp daf leen di réeral euh, ba ci man sama mbër yëkk ni la sama mbër yëkk ni la ba yëkk ni euh. tekkee ngemb ma référé wu sur Eumeu Sène ndax yaruteem ak na muy joxalee ci combat du xaste waaw daf koy teg ci yoon nga wax wax ji yiw waaw kay discipline boobu moo ma neex ci moom waaw su fekkee noonu mbër yëpp ànd nañu discipline kon ñëpp lay faral mais man sama mbër dëgg nag mm. ah mbër mu màgg ba la que ah. nga xam ni def na ci làmb lu ne mu déedéet muy Cheikh Baba ah, daan bu mag ba daan jóge mbuur sama wóoru yaay la ah. keroog ba ko sama yaay doon décoré fii ci champ de course maa ngi toog fekkee ko donc am na lu ma xam as tuut boog ci bëri ba pare rax ci dolli sama copain yi nga xam ni nekkoon nañu ko man on a grandi ensemble mais chaque soir ay booru deux heures du matin trois heures du matin dañ daan dem kusum fale wàcc ci géej gi di bëri boobu dañ ko jël comme fo kenn choisir loolu woon nekk mbër mais dañ waaw. dëgg la mais boo doon gis moom père état de forme Balla Gaye 2 gis nga ko face à face bi nga xam ne def na ko ak Boy Niang état de forme Balla Gaye 2 ak état de forme Boy Niang kan nga ci gën a yaakaar ne ko moom moo nar a jël ndam li ñoom ñaar ah. euh, dafa am lu leen wuutale mooy lan parce que boo gisee noppi Balla Gaye waaw nga war a xam ne denc na lu rëy ah. te li mu yore uh-huh. bëgg ko feeñal dëgg nga gis euh, Boy booy Niang il était plus excité ah. ma yaakaar ni booy dem defi ju combat boo xam ne bëgg nga ca daan uh-huh. sincèrement du excité noonu quelles que les raisons du combat mais yaakaaroon ne Balla Gaye 2 période bi bu Boy Niang toll tolloon na ci ay jamono toroxal Yékini toroxal euh, Tyson waaw yooyu la def daan nappaate loolu ah. dafa bokkoon ci style am mais bu demee ba jamono jooju léegi bëgg na ko dindi il est plus calme actuellement te noonu lañ ko bëggee en tout cas amateur yu bari noonu lañ ko bëggee mais toog di xas hmm. ak toog du xas du xas xas bi ñuy bi ñu xam de xas nit no non non non ah, bu njëkk non non xas bi amul importance yow yaa ngi jëm làmb ga yàgg googu nga xas xas boo xam ni ay waat yu nganda nganda nga ciy def mais bu amul nag doo rus. <laughs> ñu da lay <laughs> du doon gàcce. <laughs> waa waaw mais loolu faut pas le xam nga lan la. lan la bëgg ñoom ñu indi ko. su déggee xas. Hmm. xas dañ ko daan def ci bu ci ay jamono booy demee ji xeex. ñu am xeej boo xam ni moom la ñuy jëm ci digg benn bant. Hmm. ku ñëw di nga wax li nga xam ne nii bu ëllëgee noonu ngay def. waaw waaw da nga koy jëfee uh-huh. kon maa ngi xas loolu lañ tuddee xas boo xasee ba pare daal di yëkkati xeej bi samp ko mu mel ni da nga wax ni dëggal naa sama bopp ah. pour que suba su ma dawee rek mm. ngeen ni nga toroxal ma ah. loolu moo daan xas bu fekkee loolu lañ bëgg a copier uh-huh. ngir yàlla ak yonte ba nañ ko def ak calme ak sérénité jarul yëngatu metti boobu ñëw fen ko ñëw kii ñëw ba ma xëyee nangam nangam day indi histoire parce que ku ko mënul muñ ku ko mënul muñ day indi loo xam ne te xol dafa gaaw a yëngu maa ngi lay wax léegi ne nit dafa complexe ba xam nga ñetti xalaat xel ak xol léegi yow laay laaj ban moo ci jiitu ci yooyu ñett yooyu xalaat xel ak xol. xalaat xel ak xol. waaw. Eh, xol bi de moo jiitu. xalaat moo waaw xalaat moo jiitu la mu tibb la mu xalaat tibb ko. day ñëw dugal ko ci xol. mu faram fàcc ko. maanaam tame ko segg li bon li. daal di sànni fële. léegi la nga xam ne mooy njariñ hmm. mooy wàcc ci xol bi moo tax ñuy xel xalaat teen lañu ñu xol ci lay root. ah, ah. <laughs> yaa ma fekk si. <laughs> Ah, mbokku téléspectateurs yi yaakaar naa ne kàddu yu rafet yi nga xam ne suñu papa Lamine Ndiaye yëkkati na ko jàngal na lu ñu bëri